asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 2 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey sunu lamb leen xëy commencé ko ak yëglikaay bi nga xam ne moo di record bu ñu ko commencé ci sunu làmb nag moom Gaston Mbengue la ñu xëy dalal ñoom ñaari yëglekaay yi fu ci nekk daal Gaston mu ngi fay wax ñëw na ci li nga xam ne nii dañ moom moo di lamb ji ak li nga xam ne nii moom la ko lamb ji jural ci ay jafe-jafe moom Gaston Mbengue jàpp na ne daal li leer ba leer daal lu jëm ci wàllum perte moom am na ko ci lamb wala ay bor yoo xam ne nii topp na ko ci yu toll ci 700 millions te yóbbee du lenn lu dul làmb moom Gaston Mbengue moom moo xëy tey wax lu mel noonu waaye nag jàpp na ne prix yi nga xam ne wala kase yokk yi ba dem ca kaw a kaw a kaw ba kenn mënatu koo téye nee na loolu su amee moom moom mooy responsable bi moom daal dina du ko jiiñ kenn boppam la koy jiiñ ndax nag ñoom ñoo fi nekkoon xëy na di di defante ba mbir ëpp seen ay loxo tey ba yegg si fii nga xam ne nii de moom moom fa la yegg si Gaston moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu nee na tamit jàpp na ne mbir yi nga xam ne daal lamb business moom la ñuy def ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a rey làmb ji waaye boo tey fa nga xam ne moo di ci record gaston mu ngi fay xam le ne daal li leer ba leer xëy tey ci làmb di laaj ay kasewu cent millions ak cent cinquante millions moom mbirum criminel la ko jàppe moom gaston mbeng wax na loolu daal ci yëglikaay yi tey moo xam record la wala sunu làmb mu ngay xam le nag diggante Boy Niang ak Balla Gaye 2 moom nañ ko ci keccet newu ca cay suba waxi noppi moom gaston mbeng moo xëy tey wax lu mel ne ki noonu ci yëglikaay yi nga xam ne nii day moo di sunu làmb ak record bu nu demee fa nga xam ne nag moom moo di ci yëglekaay bi nga xam ne wala fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV Leewtoo TV moom lañ fay fekk mooy la nga xam ne moo amoon demb ca stadium Iba Mar Diop làmb ju feesoon lool Fallou Ndiaye tëggoon ko diggante Maama lamin ak Jokkel mu mel ni nag seen diggante moom foo mu mujjee neexul ci kaw ki nga xam ne moom moo di Jokkel ndax nag Maama lamin dafa doxantu ci kawam duma ko daan ko ñu ngi ko fekk fa nga xam ne nii day moo di ca Leewtoo TV mu mel ni daal maama mayu ko dara doxantu ci kawam la def dal di jàll bu demee fa nga xam ne nii tamit mooy ca Leewtoo TV leneen loo xam ne nar naa am di làmb joo xam ne tamit Baba Jaw ko tëgg mu mel ni seen signature contrat def nañ ko ci dimanche ji wala ci samedi jii ñu génn ca Gueule Tapée muy diggante Pape ndoy ak Jackson mu mel ne ki li leer ba leer nag ñoom ñaar ñu ngay diggante Jackson ne na ko ñëwal man nga fiy fekk Pape Ndoye ne ko ñëwal jarumaa wax ndax yow li leer ba leer arbitre soufflé wu a tere ma dàqi la jàpp la duma la daan la loolu la ko wax waaye beneen combat boo xam ne nar na caa am itam ba li leer ba leer mu ku ko doon xaar booy boo xaddi muy diggante ma ñi kayre ak Jacob Balde ndax nag ñoo ngi xamal ni kii nga xam ne moo di Jacob moom ak wéradi moo ko mujj a dab ba du mën a bëre li nga xam ne moom moo di combat ba yëglikaay bi di Leewtoo TV fa la ñu jëlee wax ju mel ni kii noonu waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fa nga xam ne nii day moom moo di ca sunu làmb muy combat boo xam ne suñ Modou ñaa moo ko tëgg muy ki nga xam ne moo di jegaan bu énergie ak ki nga xam ne moo di Modou Jaxate bu léebu gi waaye leen loo xam ne tamit fekk nañ ko fa nga xam ne mooy ca Leewtoo point net muy ki nga xam ne moo di Jules Baldé Junior mi nga xam ne dafa wérati woon Jules Baldé Junior nag ñun ñuy xam ne day li leer ba leer évacué nañ ko jëlee ko Sénégal yóbbu ko ci Tunisie ngir nag jéem koo faj ngir mu amaat wér gi yaramam Leewtoo moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu ba tey ci Leewtoo mu mel ni ki nag lit simple bi tamit yëngu woon na ci weekend bi nga xam ne moom la ñu génne fi nga xam ne mooy ci ndakaaru moom ki fi teg ndawalam dal di fi naru moom moo di caaka fay moom moo jël final ba waaye ca pasi tamit ka fa naru teg fa tànkam moo di ngel jonn waaye fa nga xam ne mooy ca sowal trois millions ya fa Yékini tegoon ka ko jël du kenn ku dul Aliou Faye paka la bu mbuur moom daal loolu lañ fa tegoon moom tamit moo ca teg tànkam dal di koy jël mu mel ni ki kon daal li simple bi yëngu woon na bu baax a baax a baax waaye leneen loo xam ne tamit yëngal na dëkk bi ñi ci wax bëri wala ña ko rafet lu bëri mu nga ca Leewtoo TV muy Gris 2 Gris daal dal dina génn def sortie boo xam ne daal ci wàllum ndongo daara yeeg taalib yaak jëng ya moom yëngal nañu baree baree bare wala ñu bëri rafetlu nañ ko moom Gris daal wax na fa lu yaatu yaatu ndax moom jàpp na ne day jëng sax moom defes na ko ko la ko ko woon dañ da daan def loo xam ne dañ ko koy tere te bu téye ba nag ñu ko aw yoon jubbanti te lañ cey jublu mooy fexe nga mën a toog njàng sa am njàng ngir ëllëg nga mën a nekk keneen tudd na ay tur moo xam sëriñ Serigne Mboup CCBM la moo xam borom seen cartour di Mbay Sarr ñii ñëpp cité na leen ak ñeneen ñoo xam ne day jàpp na ne jaar nañ ci taali daara yi ñu jéng leen jàngloo leen alxuraan te tey jàpp na ne ñooñu ay royukaay lañ ne na sax ñooñu tey sëriñ ba leen doon jàngal di leen jéng yow mi nga xam ne saw yoon nekku ci boo jëmee ci sëriñ bi bëgg a dal ci kawam ñooña ñooy dal sa kaw kon jàpp na ne daal mbir moom boo cay wax na nga ko xam nañu bàyyi daara yi ak ña nga xam ne ñi ñooy sëriñ daara yi ñu jàngal taaliba yi teg leen ci siraatal mustaqim ngir ëllëg ñu mën a doon dara Gris 2 moo wax loolu ca Leewtoo TV muy vidéo boo xam ne daal bu doy doy waar la waaye li leer ba leer fa nga xam ne daal mooy ca Iba Mar Diop dan fay dellu ndax nag jokkeel dem na mu ñëwee ndax indi na doole ndax indi na entraînement ndax indi woon nay argument loolu jar naa laaj ndax combat ba nag yomb na lool ci kaw ki nga xam ne moo di Maama Lamine Maama lamin nag fi mu nekk nii daa mel ni lañ doon wax ci kinaara gu màggat rek ngunu la jege day pellal di dem yoon waa cuuj du ko topp du baax jikko Maama Lamine daa mel ni fan yi foofu la taxawee moom daal mu ngi wan xale yi li mu mën ñu ngi wax nag ay combat ñii ne général bu faas ñii ne double moteur ñii ne mode waaye li ma xam daal maama daal fi mu nekk nii mu nga ca yoon wa yàgg maar. moo ko Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen ci jàngatu arène bi Babacar di la maa ngi lay nuyu di la ziar naan la ba passé nga un bon week bu baax a baax macha allah alhamdulilah waa santaat yàlla bu baax ñaan yàlla rek mu dolli ñu jàmm dolli ñu xéwal dolli ñu wér-gu-yaram defal ko bépp doomu aadama rek ci barke yonent bi sallallahu alayhi Amin Babacar ni ñëw nag ak sunlaam sunlaam dafa xëy na tey dalal ki nga xam ne mooy la doon King Kastong Meng moom daa wax na daal jaar-jaaram si biir làmb reconnaître na ne moom euh, moom yokk cachet yi xam nañu moom moom moo ko tàmmoon def si moom la jóge aussi nee na làmb ji lu tax mu bàyyi ko demoon na ba nga xam ne jeexaloon na lépp yoroon na parce que banque yi plus de 700 millions bor. waaw tey boo xoolee ñaari journal yëpp dafa xëy ngar daaju fa moo xam record la moo xam sunu làmb la muy loo xam ne daal moom mi wax yaakaar naa war naa wax. parce que li tax mooy war naa wax mooy yaakaar naa Gaston Mbengue moom ci làmb defe naa su ma juumul ne nañ ba dey mu ngi ci làmb di tëgg ay làmb wala boog sax waaw ku toll noonu combat bu ne mu tëgg ko mbër mu ne mu produire ko bu ne mu organiser ko defe naa lu wax si làmb rek wares na ko mën a takk téere ah, soo demee di ci liggéey ci li ngay liggéey nag des fois ci ngay am ay fakasal parce que da nga ci duggoon ngir di liggéey di ci gagné yaa ngi dégg des fois itam mën nga ci liggéey perte ci loolu mooy moo mooy àddina parce que yaakaar naa euh, am na ñu ko xamoon balaa muy dugg ci làmb mais nag ñi xam Gaston bi dëgg dëgg dëgg bi mu nekkee ci milieu làmb nag ci la ko yàlla ci la yàlla def nag turam àddina bi yëpp xam ko yaa ngi dégg kon am na loo xam ne tamit lamb jural na ko ko ci wàllum njariñ li nga xam ne nag des fois moo lay jural njariñ des fois fa ngay am ay jafe-jafe waaye itam comme la ma doon wax laay wax rek tëgg lamb di perte moom duñ ko mos a souhaité kenn parce que su ko loolu bu dee am yaakaar naa bu yàggee kenn dootul dugal sa xaalis ndax kenn bëggul dugal sa xaalis di perte Gaston Mbengue nag yaakaar naa li mu xëy wax lépp du ci ne rek mën na cee duut baaram yaa ngi dégg mbir man li ma li ma neex si nit mooy nga def nangam xam ne lii man maa ci fóote nga nangu ne man maa fóote loolu nit da ko nit ci nit ci la bokk te moom loolu yomb nañ koy dégg ci ay kàddoom jàpp na ne tey làmb ji am ci loo xam ne su amee ci yenn kase fu mu yegg moom am na ci part responsabilité wala du ko jiiñ kenn boppam la koy jiiñ loolu nag ci honnêteté la bokk mais tamit ci nekk nit ku nite loolu si la bokk waaw comme li nga wax rek euh, Gaston tey dafa xëy si ak si ñaari journal ginnaaw sunu laam ñëw na aussi si record moom nee na c'est un criminel maanaam daal mi ngi mel na nga jël nit ki rek rey ko nee na di laaj cent millions wala cent cinquante millions nee na combat yi nga xam moom la ñuy dégg fan yi ñuy wax ay Boy Niang Balla Gaye ay Modou Lo Ama Baldé nee na ko combat yooyu yëpp jarul cent cinquante millions waaw moom loolu la jàpp dana loolu du combat yoo xam ne yu jar 150 millions wala 150 millions ku koy laaj nit wala 100 millions comme criminel la la bëgg mën a jàppee ah loolu nag li ci am daal mooy yow miy fay nit ki bu la laajee 100 millions wala 150 millions te arrangé wu la nga ne ko mënuma ko wax ko la nga mën coow la jeex moom may laajte tamit yaakaar naa ne am na droit ne nañ ma fay nangam waaye yow mi ngi ko koy joxit rek xoolal la nga mën rek parce que mbir yi moom li ma wax la jaay jënd la rek ki man lii ne lii lay jar. moom nangam la la taxaw ne moom lay jaayee yow nga ne nangam laa mën a jëndi werante waru faa bëri déedéet nangam laa la mën a fay mu lii arrangé wu ma ngeen xool ngeen waxtaan parce que tamit mbir moom dina yegg foo xam ne nii yaakaar naa ne la koy eh, tax mu rafet wala mu jaar si aw yoon mooy la mën a ne ñu waxante ko ndax itam wax ca teel mu ga rafet mais saa yoo waxee loo mënut moom ah làmmiñ mën naa tudd lu mu mënul waaye def loo mënut moom nit defagu ko moom wala bis boo ko defee boo ca génne di nga am ay rëccu. Euh, journal bi aussi sunu ni xam ne ki nga xam ne Jules Baldé junior mi nga xam ne dafa tawatoon fan nii yëpp nee ñu daal ki nga xam ne mooy Arouna Dia benn responsable politique jege loolu Macky Sall génne na 15 millions yóbbu ko euh, fi nga xam ne mooy Tunisie. waaw Arouna Dia de yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay xam nga mbaax du jóg di doon mbaax mukk moo tax yàlla nañu yàlla dimbali def ci sunu ay xol mbaax ndax nag loolu mu def yombul. parce que xaas neex na trop nga liggéey say million yaa ngi dégg xëy na mook Jules Baldé Junior mën na am sax xamantewuñu wu ñu woon wala amuñu sax relation mais nag da di jullit muy jullit muy sénégalais muy sénégalais mu gis ne tëdd na te soutien de famille nit ñi jóg na di ko ñaanal ay ndimbal mu yëkkati xaalisam bu toll noonu def ko ci kon yaakaar naa Arona Dia vraiment daal autorité wala nit bi nga xam ne yàlla dafa la dimbali ci yu mel noonu ci lañ lay xaar ndax cas social yi na trop fi nga mën a defee lu baax bëri na trop kon moom bu loolu du ñu mën a def lu dul ñaanal ko yàlla yàlla na gën a dimbali dimbali bépp doomu aadama di ñaan tamit yàlla mi nga xam moom mooy maye ka mu jël xaalis bu dugal ko ci ngir faju ko yàlla na yàlla def ko ko wér ak pelek ñëwaat ci biir ay mbokkam ñëwaat ci biir famem parce que tamit lu dul baax daal baax a ko gën yàlla nañu yàlla dimbali ñi man ñi ñi mel ni man mënuñoo baax sax yàlla leen yàlla forcé def leen maanaam fexe ñu baax ndax mbaax a gën lépp. waaw suñu jógee nag sunu laam nañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo euh, point net Leewtoo point net nag euh, dañu xamal ni galaad lutte simple yu amoon si semaine bi si si week-end bi ñu génn fi nga xam ne mooy Adrien Senghor Caka Faye moom moo ko gagné fi nga xam ne mooy Passy Ngel John moo ko gagné fi nga xam ne nag mooy gala de euh, bu Joal bi ki nga xam ne mooy Pakala moom moo ko gagné si 3 millions Yaxya Jóob Yékini. waa loolu day moom du bet kenn Caka Faye gagné na tournoi. du beet kenn ndax yaakaar naa làmb simple ku ne xam na ko ci lu ne gañe na ko ci kon bu gañee Adrien ñu ngi koy félicité di félicité ñu tëggoon làmb ji mu ñoom Saliou Diouf fa nga xam ne mooy passé tamit ka fa nekkoon moom moo di ki nga xam ne nii moom moo di euh, ngel na moom moo fa gañe loolu tamit ñu koy félicité bu baax a baax moom itam mérité na ko ndax boobu ba tey mu ngi participé ñu koy éliminé kon loolu mooy kan sport la rek tey da ngay neex su mu naqari paka la moom li tax ñu koy ñu insisté ci moom parce que moom dañ ko war a defal mention spéciale ndax mbër bu mag la bëri na ay cachet ay millions tey mu dem ba xam ne lambu frappe bi yombatul ci moom mu retourné wu ñëw ci lutte simple bi daaw ba ren di ci wane boppam di ci gagné ay tournoi gagné tournoi bu toll noonu ca ca ca Joal 3 yaakaar naa ne kon moom yeyoon na mention spéciale hygiène bu ñu koy wax ci lu mel nii moo tax ndax am na noo xam ne bu ñu dundee ci carrière am dootul li mu mën tey parce que xale ña muy dajeel ñoo moo leen mag ci ay yu ndaw lay mbëkkanteel ci lutte bi da leen di daan di finaal ñoom di gagné ay final yaa ngi dégg yaakaar naa su ma jumul bi mooy ñetti finalam

waaw bis bu ñu ne lee dellu fa nga jóge woon day fekk nga rafetal ko de mais boo ko rafetalul sag dellu day métti torop kon moom ni mu dellu see daa rafetal fi mu jóge woon moo tax mu mën a dellu si ba am fi dara loolu am na solo Babacar ñu jógee nag si Leewtoo dem si Leewtoo TV foofu combat bi nga xam ne premier juillet Fallou Ndiaye fay si stade Iba moo fa nekkoon euh, diggante Jokkel ak Mama Lamine Babacar yaa ngi fa woon dafa mel ni Mama Lamine moo daan euh, Jokkel waxoon na ko le premier premier décembre ba xaw ma 31 janvier saa suñ bëree. dama lay daan loolu la ko mas di wax daaw ba ren ba combat bi taxee ñu ne jokkeel blessé na ah yàlla def na nag bi ñu blessé ñëwaat nañu faju na wér na promoteur bi jàpp na datam mu nekkoon dem le premier décembre ñu bëri stadium bi fees dell teel a fees rang bi bëri lool loolu moo lay wan ne saa yu tëgg bi tamit tëggal lamb ju amateur yi soxla amateur yi moom xam nañ lu jaadu soo yu tëggalee lamb yu jaadu rek te ñuy fees stade bi dell dem Fallou Ndiaye ñu koy ci félicité moom tamit ak ñoom Tafa Mbeng staff bi yëpp waa Ndiaye production euh, am di Moustapha ñoom fàlloo kaa yëpp daal ñu ngi leen di féliciter ay mor bu parcelle mbooloo parce que loolu mooy li nga xam ne démb moo amoon Iba Mar Diop ki nga xam ne nag moom mooy jokkeel démb ci li ma gis sama bët may ma ko indiwul lu daan Mama Lamine du ci bëre du ci xeex du ci doole du ci tamit ak dal te yooyu bu dajewut ci yow pour nga indi sa adversaire problème day jafe ndax mbër di nga indi doole ci làmb war nga indi argument wu bëri indi argument wu xeex mais tamit dal ci biir bëri maanaam ñeme li ngay def loolu nag li la koy xañ mooy boo amul amul doole sa fit du toog sa xel du toog sa bëre du toog maama Lamine nag li mu wane lam daan wax la wane moom boo ko xoolee mayu ko jàmm attaqué na ko fatt ko bëre ak moom ni mu ko sentiré daan ko jël bu leer nañ kon jokkeel tamit na xoolaat boppam ndax ci làmb la bokk te am na ñu ko yaakaar kon nag na xoolaat bu baax a baax li muy def maama nag fi mu nekk nii moom il est pour que mu tamit yegg ci yenn niveau yi ndax mu ngi ci dynamique bu doy doy waar. Babacar loolu am na solo euh, si kàddu yoon leen di tàggoo leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay Meeso nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astandine déjà Brahma depuis euh, Italie Chéri Khadija Diallo nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallou Rokhaya ak ki nga xam ne mooy bébé Moussa du nuyu euh, Abou Gueye doomu ndey cité du Seck Chéri Khoudia Seck depuis itali du nuyu aussi Aïda Diouf bi nga xam ne moo gën tey si Suisse si sweatshirt bi naan ko jërëjëf ajaaraama waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ñooñ nga nuyu ñëpp maa ngi leen di nuyu di tamit di nuyu lu tax mooy ah nit ki tam moo génn fii waaw moo génn fii xam nga nit ki nga yëngu si dara nit di ko jox di di ko nuyu di ko ziar di ko nuyu di nuyu ni ñoom Zal Fay ñoom di ay jaaykatu yére Aliou bu Yankaaw ñu ñëpp may ñawal ak ki nga xam ne mooy Cheikh maam Cheikh borom Daaru Salaam moom tamit moo koy nuyu bu baax a baax mais di nuyu ki nga xam ne mooy Saliou xulle bu Zik FM moom tamit di ko nuyuwaat rek di ko ñaanal jàmm yàlla na jàmmam yàgg saaliw xulle di nuyu Awa Thiaw moom tamit dëkk mbomboy di sama mbokk maa ngi koy nuyu Baye Latlou Diagne efficace Ahmed Faye Papa Lawbe Sophia Diagne cité Kër dëkk moom tamit maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp tuuti yaay saaru ma ko fàtte Khady Rose Ndiaye borom Allemagne di wax ka ni daal Sénégal yàlla na fi jàmm Iba maa ngi koy bëggee bu baax a baax borom Pikine mais yàgg maar kenn du moom maa ngi koy bëggee bu baax a baax mais dem dama ko laaj mbër mi ni mu sukkee nu mu tudd ci tubaab muy hésité yàgg maar maa ngi lay nuyu ballon d'or bi moom ñun suñuy wax gudd ci gàttu ci daaw wala daaw jéeg newunu fi naan Sadio Mané ballon d'or ren suñ ko waxee loo gis lu ne am na lu ko waral Sadio Mané dafa am lu mu wane addina bi ñëpp teg ci seen i bët nun nag duñu ay tubaab nut yu ñuul lañu te nous sommes fiers d'être noir ñun Sadio la ñu àndal suñ ko joxee ballon d'or ñun jox nañ ko ko suñ ko ko joxul ñun jox nañ ko ko ndax li tax mooy finaalu na ñaari yoon Ligue des champions ak Real club bépp dool ci àddina bi ñàkk dellusiwaat finaalu ak kan ak Tottenham duma leen jël Ligue des champions ba nekk meilleur buteuru Angleterre finaalu Coupe d'Afrique wane na ay preuve ci monde bi c'est le meilleur parmi les meilleurs actuellement Sadio Mané du Kiris du Messi man maa ko wax kuy football actuellement Sadio moo la gën a taxaw bu ko bu suba incha allah.